dëkk bu sell bi di Touba tey ji ñaari fan ci weeru Zulqinda dëppoo fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet 2018 njàngum alquranul karim ak ay xasaayit lañu yendoo ànd ko ak kuréelu xasaayit yi di yëkkati xasiday cheikhul xadim fépp foo dem ci biir dëkk bu sell bi di Touba taalibe yi génn nañu ñoom ñëpp di teewlu ndigal li nga xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké joxe woon na ko ci jumaa ju mag ji ak li nga xam ne mooy li ko wër nit ñi dañu faa fees dell ñëpp ànd ak teewlu ngir jàngum alquran mi ak xasida yi mbooloo mu takk ñëw ngir wuy si ci woote bi nga xam ne moom la xalif général des murit defoon muy bis boo xam ne dañ koy jagleel delluwaat ci yàlla sunu borom ci njàngum alquranul karim ak xaside yi nga xam ne ay tagg la yoo xam ne Serigne Touba da ko jagleel liggéeykatam tedd ba di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne it Serigne bi ni mu ko diglee woon ñu génnee ay sarax jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ci barabu jullikaayu ayit bi amal nañu fa tey ji jullik baaw naan ci njiital sëriñ Afia Bousso imam muy bis boo xam ne kon taalibe yi ak bokki jullit yi ñëpp dañ ko jagleel delluwaat ci yàlla sunu borom ni ko sëriñ bi digle woon muy bisub jaamu yàlla ak delluwaat ci sunu borom waaye tamit tuub ngir sàkku ndimbal ginnaaw bi ñu jullee tàkkusaan ba noppi ci lañu ñaan te njàngum alxuraanul karim mi ak xasida yi nga xam ne ñi ngi ko doon amal muy bis boo xam ne it xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké noonu la ko àndeek taalibe yi ginnaaw bi mu jaaree ci jumaa ju mag ji ngir nemmiku liggéey bi dem na it ci mboolem kër njabootuk Serigne Touba yi nga xam ne ñoo wër jumaa ju mag ji noonu tamit la ko defee ci daara Hizbut Tarqiyyah ak i tamit ca Guédé Bousso